guddi dibéer yamook juróom benn fan ci weeru juin daayira xidmatul yi ñi ngi doon amal liggéey bu am solo mu jëm ci sàkkarti canal yi nga xamee ni ñoo nekk ci booru jumaa ji ak li ko wër loole nag mi ngi jëm ci wàccaayu nawet bi le ki yor wàllum organisation bi mu ngi ci andi ay leeral waaw bisu tey bi moom euh, ngir sàkkarti canal yi di wër jumaa ji ngir waajal ndox mi nawet bi moo ko moo ko sabab ñu jàpp ko dimanche bi ndax alxames bi moom day mel ni bale lañ ko baaxoo defee léegi nag moo waral ñu jàpp ko dimanche yi ngir euh, sekkar ci canal li mboolem li wër jumaa ji ngir waajal nawet bi euh, bu ñu ñëwee ndox mi du du am fenn fu mu taa. loolee waral nag ñu andi jumtukaay yu mucc ayib ngir daal di amal li ni mel daanaka fàttewuñu lenn. waaw bis bi moom waajal nañ ko ci bépp fànn boo xam si ni maanaam liggéey bi laaj na ko ci baramine ci peel ci sio ci ordi ci gant ci maska lépp rek maam waajal nañ ko ci ngir maanaam euh, liggéey bi lu mu ci yittewoo rek ñu mën koo amee noonu moom waajal nañ ci gépp fànn mom ndax xool nañ avant la jiitu loolu saytu nañ ko ba xam li nga xam ne si yittewoo nañ ko fi ba ci poto ndaa ba yoo xam ne sax moom fàggu nañ ko nga xam ne lépp loo xam si ni maam liggéey bi da koy yittewoo rek maanaam saytu nañ ko ngir maam maam lépp mën a jàppandi ci bu ñu sukkandikoo ki yor seen kàddu mi ngi leeral nii mbokku taalibe yi ñoo daal di dajale koppar yi ni mel ngir lii mën a am waaye fësal na ni jamono ji am nañu bokk ci liggéey bi dañuy am jafe-jafe transport. waaw mooy ni nag weesuut maam taalibe yi addi ji nga xam ne moom lañuy ñuy dajale maanaam kenn ku ci ne li nga ci warloo muy ñaari junni ci at mu jot ginnaaw boo dagee carte membre maam moom la ñuy dajale ci jënd lépp loo xam ne xet ma yitu woon ko muy peel muy buret muy popeel muy lu mu doon loo xam ne jumaa jiitu woon ko rek tañ fas ko ci yéene def ci loolu lañ ko fas yéene génne waaw jafe-jafe moom weesuwut da xanaa jafe-jafe yi transport rek maam jafe-jafe transport daal ndax bari na ñoo xam ne fañ dëkk sori na sori goo xam si ne bu ñu ñibbi yow da nga leen di yërëm sax yow ndax dalay wir am na ñoo xam ne daanaka fa ñuy dëkk day sori lool waaye daanaka am na ñoo xam ne dañuy dox daayira xidmatul xadim ñi ngi ko sos ci weeru décembre ci atum 2010 ñoom ñooñee ñu ngi leen ràññee ci liggéeyu jumaa ji nga xamee ni alxamis bu jot ci guddi dañ koy amal mu jëm ci bale jumaa ji ba mu set rawatina tool yi nga xamee ni am nañ ko di ko béy lépp rek luñ fa jëlee jëlee daal di koy andiwaat mu duggaat ci jumaa ju mag jile loolee yépp nag ci ndigalul xalif général di murit Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké